Ansar TV gaaw leen gaaw ngeen bés cloche bi su ko defee ngeen doon membre abone di am en temps tous les événements lu bees tàq wàcc na ci géew bi muy borom Baxdaad Karo entreprise boo xam ne dafay jaay lépp loo xam ne jëm na ci xeetu karo bépp xeet ba ca bëgg nag boo fa demee ñu jaay la ko moo xam qualité européen yi Espagne Italie fii ba Inde jàpp Chine qualité boo ca bëgg boo fa demee ñu jaay la ko moo xam corossol 60 sur 60 corossol 60 sur 120 corossol 30 sur sol corossol grès cérame corossol grès poli ak ay caro faïence yu rafet lool faïence cuisine faïence salle de bain ak façade bâtiment faïence patio amna nañu itam ay salle de bain yu luxe yu mengo ak jamono yo xam bo bëggé sangu da nga dem sangu ji bo bëggul a sangu itam da nga dem sangu ji ndax seenub taar foo ko nat rek weesu na amna fa ay chaise anglaise lavabo chasse flexible marque européen mbokk BBC borom baxtat karo seen gérant di Ahmadou Bamba Amar seen adresse ña nga nekk ca Kër Massar yono Sediment, ci wetu Jolof ci kan boo bëggé jokkoo ak mom wooteel ci 77 748 13 37 77 748 13 37 voilà, 76 748 13 37 76 748 13 37 Voilà, le doko ak Serigne de 77 203 04 75 77 203 04 75 Moki BBC borom Baxdaad Karo yamul foofu ndax kër la goo xam ne lépp loo fa soxla ci ay meuble salon chambre à coucher ay porte blindée marque turquie defal sa commande nu mu gën a gaawee diirub ñaar fukki fan képp lay am ñu indi la sa matériel na mu gën a gaawee kon nag mbokk yi kër gu taaru gu yaa njigaa ngoog di BBC borom Baxdaad Karo su ngeen àndee ak ñoom daal li ngeen di yittewoo ci wàllu karo te daan ko jéggaani ba bitim réew léegi loolu dafay dakk macha allah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 yenn leen ndigalam ngir ñu jottali ko nit ñi sunu boroom wax ci alxuraan ne yonentu yàlla Muhammad de gëm na yàlla waaye gëm na li yàlla wàcc ci moom mu bàyyi ko ci boroomam way gëm yàlla yépp it noonu lañ mel dañuy gëm yàlla gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonent yi ñoom seen màndarga mooy duñu tàqale kenn ñépp daal ndaw yàlla lañ woon yàlla lañ yónni kon ñu baax lañ gëm googu mbokk yi kon laaj na ku yàlla mos a yónni te mu wér ñu nangu ne yàlla ko yónni bëgg ko ci sun xol di ko ñaanal saa su ne yàlla dolli ko xéewal nangoo it li ko yaa defal ci baax ak ngëneel ndax ci tànneefi yàlla lañ bokk am dara ju màgg màgg loolu nag jotewut dara mbokk yi ak li nga xam ba baaxoo di gis buñ tolloo ci jamono yi ci atum tubaab ñi waaye jeexal at ay yëngutu yu bari ay mbir yu tumuranke yoo xam ne jotewut ak diine dara gëm gi ñu gëmloo yonent yàlla yi jotegut ak loolu dara sequñ dara it waaye gis nañ muy tasaaroo ñuy wax ne yonent yàlla isa alayhi salaam ñeneen ci la gane woon àdduna am ñu koy màggal ñun jullit yi it ñu leen di cay fekk si di ko réyal ci am po ak i caaxaan di sànq waxtu di sànq alal te alal ak waxtu mbokk yi di seer lool yoo xam ne ku masa raw ku masa jàll rek benn ci yooyu dimbali na la nga jàll kon ku xam du ko sàgg waaye ànd ak tooñ di tooñ ay nit ñu seen yoon nekkul ca loola di leen lëjal ci ay yëngutu ak i coow waaye di tiital seen fit di taal ay sawaraak kenn xamut fu ne nit ñi di fa jëm noppalu gi nga xam ne yàlla daa bind guddi ngir nit ñi di ca noppalu ñu xañ leen noflaay boobu mbokk yi loolu tooñ gu rëy la tooñ yépp bon waaye rawatina tooñ koo xam ne yëgoo ne tooñ ko nga xam ne mënoo ko balu te bu faatoo nga faatu yomal xiyaam faaw nga la ko toñ ko yooyu mbokk yi yu mat bàyyi xel la réerandoo fu nit ñi jëm nga jëm fa du mbirum jullit jullit day xool fu muy teg tànkam lépp lu muy def man koo layal ci diine mën a wax ne lii diine ma ko sant moo tax ma di ko def diine yàlla ji nag sant la ngay wormaal bis boo xam dañ ne dañ ne ci la yonent yàlla Isaa gane woon adduna te wax ji sax am na ci wax leneen dañ laa gëm loo nga gëm ne yonentu yàlla yàlla yónni woon na ko ci aw nit def na liggéeyam dem na yonentu yàlla Muhammad ñëw na wuutu ñëpp diineem fol li diine yëpp lan lañ sant nga gëm waaye santuñ la leen suñ tuddee aw turam daal jullil ci moom ne la alayhi salaatu wasalaam ndax loolu la ñuy sant amaa nag bi di ko wutal bis bu bis ba dikkee nga ciy soppi aw doxin di ca dof ay yëngu yoo xam ne yaa ngi lor sa bopp di lor ñu ngi la wër di yàq alal di yàq sa waxtu loolu mbokk yi munkar la noppi ci jaaduwul nopp ci jaaduwul ci loosu ñu bari nag laaju ñu ci raw kenn kilifa gu ne ci sa kër ak ña nga jaboote ñu ci bokk xamal ne am nga responsabilité ci sa njaboot buñ bokk ci yooyu bàyyil xel ne sunu borom daf laa dénk njaboot gi ngeen nga jox la ndigalul ne leen nag leen musal ci sawara li tax mu ci sawara ndigal bàyyi tere kon topulunyo lu ñu la wut ndigal yak alal topp ndigal wah waxtu topp ndigal te yu mel nii ci la nit ñi di seen seen seen bis di ci wut ay fowukaay di ci bégal gone yi di leen gëmuloo ne bis yu màgg lañ loolu njuumtal réy réy la ku ne ci war xel bis yu mel nii sopp ci sa sa cin sax jaaduwul ndax tàmmal sa njaboot wormaal ay neen la ay neen kenn ko wormaal loolu jullit dañ ko war xam am na yeneen yitte yu rëy yu ne ci seen kanam yu gën mag waaye boo demee ci dëkk yi mag yi tey bu dégg taal ay làmp di alal jurul jeex ci ay caaxaan ci saxal ay neen ak ci nit ñi di ci yàq ndaw ñi loolu njuumte la mbokk yi mun kar la boo xam ne ñëpp ci war a wax way jur yi am nañ ci wàllu réere yi buñ fàtte mukk ne yàlla da leen sàmmuloo seen njaboot ne na ngeen fex bañ mucc ci sawara yi nga xam ne boo liggéey kuñ yarul jaarul fa ñu la war a jaaral bu ñuy sawara xam la matt koy xam bu ay nit la ak ak xeer moytul li la yàlla dénk bokk ci boo liggéey loolu nag faaw nga jaare fi ko war a jaaral yar ko ñu bayi xel baaxit mbokk yi ne loolu nag yar bu rek moo koy maye maanaam bàyyi ko ne ci la ko neex ba màgg ba tàmm ko nga naan ko bàyyi lii bokkul loolu du jële de bu ba mu juddoo wala njëkk mu judd ci nga koy waajal tànnal ko way jur ba nga jaarale ko jaarale saxal ci ak la war mu ko ko diine yar ko ca loolu warteef la ci ñëpp ci jamono yëpp waaye rawatina jamono yi nga xam ne li ñuy gis ñaawteef fu ñaawteef amoon léegi tasaaroo na jërëtul nit dox ngir gis ñaawteef fu mën a nekk ñaawteef mën na faa fekk loolu nag ku ci am njaboot ñu ne la fexeel ba mucc te yëgoo dara bàyyiwoo xel dara yow mootoo li nga doon mbokk yi nañu góorlu ñaan suñu borom sàmm ñu sàmmal ñu njaboot gi responsabilité bu réewu gàllu ci suñu loos la ku ko woyofal rek xamoo li nga nekk te njaboot gii bu ëllëgee suñu borom dana leen laaj kon taxawu leen war nag musal leen ci wedd yàlla musal leen ci yàq yàq musal leen ci gëm lu ñu warta gëm waaye musal leen ci nekk ci lu ñu warta nekk yàlla na yàlla boole dimbale si lu bees tàq wàcc na ci géew bi muy borom Baxdaat Karo entreprise boo xam ne dafay jaay lépp loo xam ne jëm na ci xeetu karo bépp xeet ba ca bëgg nag boo fa demee ñu jaay la ko moo xam qualité européen yi Espagne Italie fii ba Inde jàpp Chine qualité boo ca bëgg boo fa demee ñu jaay la ko moo xam carosol 60 sur 60 carosol 60 sur 120 carosol 30 sur 30 carosol grès cérame carosol grès poli ak ay caro faïence yu rafet lool faïence cuisine faïence salle de bain et bâtiment faïence patio amna nañu itam ay salle de bain yu luxe yu méngoo ak jamono yo xam bo bëggé sangu da nga dem sangu ji bo bëggul sangu itam da nga dem sangu ji ndax seenub taar foo ko nat rek weesu na ko fa ay chaise anglaise lavabo chasse flexible marque européen mbokki BBC borom baxtaat karo seen gérant di Ahmadou Bamba Amar seen adresse ña nga nekk ca Kër Massar yono Sédiment ci wetu Jolof ci kan boo bëggé jokkoo ak mom wooteel ci 77 748 13 37 77 748 13 37 37 wala 76 748 13 37 76 748 13 37 wala nga jokkoo ak Serigne Modou Leye ci 77 203 04 75 77 203 04 75 mbokk yi BBC borom baxdaat karo yamul foofu ndax kër la goo xam ne lépp loo fa soxla ci ay meuble salon chambre à coucher ay porte blindée marque turquie defal sa commande nu mu gën a gaawee diirub ñaar fukki fan képp lay am ñu indi la sa matériel na mu gën a gaawee kon mbokk yi kër gu taaru gu yanji gaa ngoog di BBC borom Bagdad karo su ngeen àndee ak ñoom daal li ngeen di yittewoo ci wàllu karo te daan ko jéggaani ba bitim réew léegi loolu dafay dakk macha allah